Bonjour ou bonsoir, chers amis internautes. Sauce promis, sauce due. Nous sommes ici sur Elvision Media pour vous présenter votre première émission Hip Hop and MC. dañuy dem barak station Talibou Khonk pour rencontrer un crew mythique des psychopathes de Rouen, Mamen Joss Killer and Arafa Pro. ñu yàgg représente ca fépp fépp ci seeni Moi, ñu qui jéggi mbalit xuus ndox il se nomme Raoult Street si vous êtes prêts on y va Jenny Microphone. Hey, yo, Jenny Microphone. Niggas. Jenny Microphone. Jenny Microphone. Jenny Microphone. Come on. We get hip hop. Who got We get hip hop. Who got We get hip hop. Who got We get hip hop. I said real hip hop. Real hip hop. Real hip hop. Real hip hop. Come on. Hardcore shit. Hardcore shit. Hardcore shit. Hardcore shit. Hardcore shit. Hardcore shit. Hardcore shit. on us and dry. Put your pepper on the jaw. When you don't want to who's up, when it is mark who has your head. You're gonna wow, we're now. Once again, for run to the car. Got some over. Okay, you see personality, you're not gonna wow. Whoop it, pop, don't touch the bar. I'm gonna steal. Got it, the bar. Let's let them get this get for them and hardcore shit, y'all will understand. No matter what, then we're in there. In the Africa, I'm in the agenda. Revolution, revolution. I'm the no evolution. Fuck, fuck, damn, man. Oh, yeah, who does not?

Yeah, Galsen Hip Hop World App, EMC, Elvision Media, you got Joff Killer, aka Dongon Dom Rouse everybody. Kewe Elvision Media di bëggee ñëpp di leen bëggee di leen wax yéen ngi am Super Arafa aka Master Scrabble man represent Rouse Street. yéen a ngi uh, live on Bandako Foundation you mu ngi situé fii uh, Yëmbal Nord plus précisément Benn Baraak you yeah Bandcrow Foundation nekk benn big big label buy def uh, real hip hop buy def music you know di def movie vidéo you know nekk di promouvoir xam nga hip hop galsen plus particulièrement xam nga hip hop underground bi rap classique bi you know yeah Bandcrow Foundation nekk aussi di préparer album phare ay album yoo xam ne ñu ngi koy xaar uh, you know ci rap galsen yu mel ni album Raw Street you know yu mel album Kabda and Laugh ga ak yeneen album yàgg na mais officiellement ñu ngi ko créé depuis 2003 you know au niveau de Thiaro yi xam nga créé xam nga par des membres comme yeah Diof ki la you know Konji you know Diallo xam nga Kos xam nga Dway ñooñu ñoo créé Raw Street biir Thiaro yi depuis 2003 Raw Street veut tout simplement dire waar street bi you know street anglais la Raw xam nga mooy waar bu ñu jël dëpp ko mu nekk waaru street bi jom mbedd bi parce que yi gis nañ ne you know rab musique mbedd la quoi you know you know xam nga léegi hip hop ku wax hip hop wax mbedd comprendre la parce que tey jii li may di wax naan kër boo demee tey jii ñun suñu gàll ñun on est des ngomeen am nuñ mel nga dem gàlle bi ay jóobeen am nuñ mel quoi c'est-à-dire fi ma waxee mooy ku ci nekk ak sa gàlle problème du am mais problème fu muy amee mooy bu ñu dajee ci street bi. you know kon donc nag street bi lañu war a defar parce que street bi mooy bien commun mooy li nga xam ne ñëpp ko bokk comprendre kon ñun on a visé nécessaire ñun bu ñu joobee street bi rek suñu mission incha allah duñ ko raté moo tax ñu ne raawu street maanaam job street bi ci mentalité you know ci mind xam nga yee loolu mooy raawu street quoi. ok xam nga suñu nee mbedd mbedd dafa yéeme quoi tu vois am na ñi nga xamante ne du ñu wàcc si mbedd mi fii ba suba du ñu wàcc si mbedd mi parce que ñoom du ñu ay alalu mbedd am na ñi nga xamante ne ñooñu ay alalu na ñoom ñooy wàcc ci mbedd mi parce que ñoom ñoo dëkk ci banlieue bi xam nga ñoom ñoo dëkk ci géro bi quoi de manière générale ñooñu nañ bëgg a defar ba nga xamante ne tey def ci seen bopp loo xamante ne dinañ dëgër ba dara du leen mën a duñ doon ay xob quoi dara du leen mën a yóbbu. Raous Faye te parcours am waaw sori na te aussi tamit yaatu na quoi parce que depuis def nañ fi ay pas pas mal de singles Yo xamantene xam nga heure bu ont xam nga gars yi très ça xam nga c'est du quoi comprendre nga. na quoi en même temps tamit gars yi ngi doon album Raw Street de boobu ba xam nga malheureusement nag gars yi amuñu ko mais il n'est il n'est il n'est jamais trop tard ba ni ñu nekk ni xam nga di liggéey. parce que tamit bëgg andi lo xamantene day exceptionnel mo tax tamit affaire jël temps you know parcours Raw Street bokoy xol de def boobu ñu ngi qui ont di def ay parce que ñuy euh, yi Hip Hop. ci amul koo ci amul kenn koo ci wax raw su ñu ne la non man xaw ma ñooñu you know teew tamit muy concert yi boobu léegi ñu def suñu bon petit euh, bonhomme de semaine ñu ngi ci ñu ngi ci scène yi parce que Raw Street scène yi nga xamante ne marqué na hip hop Galsen yëpp Raw Street jaar na fa waaw tey ji nii amul fi benn scène bu mag boo xamante ne wax nañ ko te Raw Street jaaru fa te non seulement du question jaar pour jaar nii rek mais aussi tamit bu ñu fa jaarate ñun bàyyi suñu empreinte quoi comprendre parce que ñëpp xam na ne tey jii nii hip hop bi ba fu muy mujj. mooy scène yi quoi bu scène dundee rek hip hop day dund quoi you know depuis boobu léegi ñun ñu ngi ci wéy boobu noonu nekk tamit di jox suñu carrière bañ a yàqam si dara tamit quoi. raawu sànq Jos waxoon na ko laaloon na ko tuuti mooy waaru mbedd la waaru mbedd mooy maanaam mbedd bi nañuy liggéeyal te mbedd mi soo koy liggéeyal dafa laaj bu bari. ok raawu Sri si côté ouverture am mooy musique xam nga ñun musique nañ am quoi hip hop te gars yi bëgg nañ rap mbedd mi bëgg na rap parce que rap musique mbedd la. Raw Street ci mbet ci ci musique bi lay jaar à travers à bi di jàllale ay message am di ko di ko di ko di ko def ci Ghetto Boys yi quoi. objectif bi mooy dafa am loo xamante ne yow da ko moom te fi amul kenn ku lu koy jox te loolu da nga ko war a dem jëli ji comprendre ma la tegal du yomb nag parce que y a jii nii boo xool Raw Street par exemple bi ñuy door di tàmbali ñu woon nii yaa ngi noonu dél bi yee ak cours life muy demee am na ñoo xamante ne dem nañ voyager comprendre ma la tegal mais teewul boobu léegi esprit bi. mu ngi comprendre esprit de envie dem def affaire comprendre aussi tamit euh, il faut dire une chose ah lu wax tamit chaque aussi l'héritage quoi comprendre affaire du problème de album album wala parce que nit def album mu album comprendre mais objectif quoi ngi ci ni rap musique parce que

ku ne Raoussoury tey ñëpp ñëpp ñëpp koo ne Raoussoury tey ana albumu Raoussoury la lay laaj tey ñëpp Sénégal bi yëpp tey albumu Raoussoury nañuy laaj monde entier bi yëpp albumu Raoussoury bi nañuy laaj comme Raoussoury instant yi nii tànk ñu mu taxawee mooy tànk teg album bu carré jox ko mbedd bi ko te Raoussoury lu muy liggéeyal mbedd mi mooy album bi nga xamante ne mu ngi koy waajal muy euh, recyclage ñun dañoo bëgg a recycler lépp li nga xamante ne moom la gars yi moom la gars yi moom la gars yi teg te nekkul quoi Raw Street da ko bëgg a indiwaat leneen li nga xamante ne moo nekk lu bees wala mu delloowaat buum sa mbooy mbooy ba. fi ñu leetu door mooy ku ci nekk tey jii nii ñi may njëkk a tega mooy suñuy naataango suñuy nawle parce que tamit. man rab gaas am na ñoo xam ne nawlawuma leen am na ñoo xamante ne nawlu ma leen na koy déggee mooy duñ def ma déglu ko parce que tamit fajuñu ma quoi comprendre ma la tegal ñi nga xamante ne man ñoo ma intéressé mooy ñi nga xamante ne ñoo bokk lu ñuy def mooy que ne ñun game bi dañ cee am wàll comprendre ma tegal bu ñu toog di seetaan ay naqa sa xëndang xam nga ñëw di accaparer game bu ko def seen moomeel fi ma waxee mooy ñi nga xamante ne tey jii nii am nañ talent am nañ sañ-sañ you know am nañ pasteefu xam nga lettre d'or bi loolu quoi parce que am na loo xam ne suñu taxawee ko seetaan baa ko hip hop mooy mooy ñàkk you know gars yi nañ defaraat taxawaay nañ pasteefu affaire yi combat la xam nga affaire yi du question ay album bien vrai que loolu la al artist da ngay am identité identité al euh, comment dirais-je album identité artiste la comprendre ma tegal mais nañ pare nañ pare pour fay ne ñun ñu suñu suñu next generation bi dañ leen dañ leen war a bàyyi benn héritage bu bu bu positif quoi you know te instant bi nii hip hop bi tournure bu mu jël nii non doxul quoi kon sama gars yi bu ñu nelaw xam nga nañ jël hip hop comme ni ko cëf waxee. recycler ko quoi parce que am na loo xamante ne gars yi dugal nañ ko ci hip hop bi bokku ci nañ recycler loolu génnee ko teg hip hop brut bi hip hop bu confiant bi hip hop révolution hip hop buy éduqué bi yeah for real man. li may denk Sénégalais yi moom bari na bariwul quoi parce que yaakaar naa su ma demee bay ubbi sama gémmiñ rek ci moment yi nii nii ñu toll rek ñoom xam nañ ko quoi parce que ñu ngi si élection yi ñëpp xam nañ politiciens yi nu muy demee dañ lay soxla. xam nga jox la ay ludul jox la lepp li nga xamantene dang ko bëgg lepp li nga xamantene yow day doon say besoin da ko dang ko dang ko yello ñu ñew jox la ko tek ko sa loxo pour nga voter len alors que warul démé non da nga wara tok conscient conscientiser sa bop yow xol lan mo la arranger ak kan mo la doy xam nga sandil ko sa carte quoi te ni nii ni gaay ñu ngi ci période euh, campagne xam nga ni ni ni buñu kenn di diñu di di jël suñu maayaan xam nga diñu ñu bañu bañu tégal ko suñu bañu talal ko suñu loxo quoi mu ñuy jox ñukay sandil suñu carte quoi waaw di shout out everybody ñi nga xamante ne ñu ngi doon kiife émission bi depuis commencement ba fin El euh, Vision Média xam nga jàpp rek too bàyyi quoi dina gën a cool yeah respect for everybody Arafa nga doon am respect. yeah man shout out for my all niggas yeah di wax ni gars yi affaire yi lii la quoi te aussi tamit ñëpp na gars yi break by mind El Vision Média NMC parce que lii lañ soxla quoi you know game bi lii lañ soxla quoi xam nga ay combattant gars yi nga xamante ne xam nañ ce qu'il faut à la place qu'il faut you know bu ñëpp defee ni hip hop Galsen xam nga day day jëm ci kanam quoi parce que gars yi le seul problème mooy instant bi dañoo banaliser underground def ko lu archaïque mais heureusement ñu mel ni ñoom jol jol combattant ont compris quoi que ni hip hop bi underground bi la. for life Raw Street you know Bandcrow Foundation. Shout out my man Master Yeah, I'm out. For Yeah. J'espère que vous avez suivi, aimé et apprécié le crew Raw Street. rap. Quant à nous, nous PM. Abakanga, El Master et toute l'équipe de El Vision Media. Je les dis d'aller, Inch'Allah, la prochaine pour le deuxième numéro de votre émission MMC. One love and respect. Wassalam. Handen er man, yeah, that's what we do for under. Rob, roll, will ponder from us with